Bessimile Karim Wade legi mu ak atekat bi la tribune moko xeye xëyee sunu yi nek Karim Wade ay mbiram gawtu amna na ci ndax ay fan yu new ñoko déssé ngir mu taxawal stratégie bu mu mëna may bu ko mëna may mu ak atekat bi ñogu ci seen semaine bi di ñew lepp dina lèr nde bu ñu moytuwul ay confrontation dina am digënté ak ñi ñu japp ne ay complice lañu ñu ci melni nañu ko jappalé won jamono yi japp Karim Wade eh, tej leen ci kasso bi liñu bëgg nak mu lèr mi ngi toll ci juroom ñen fukki milliards ak ñent manam 80 19 milliards ay milliards booy na sunuy nopp ñun sénégalais yi yenn ci ay yéenekaay xëyee ko niki tay le quotidien na Aïda Ndiongue am na fan ngir léral alal jumu alal jumu dañ ko am mu tollu ci ñen fukki milliards ak ben libération yéenekaay ne alal jojé ëpp na lolu ndax parquet bu créé 43 milliards la def ci mise en demeure bi tout 47 milliards. procureur Ali Ndaw ci téwayu avocat yu responsable parti démocratique sénégalais boobee jébbal na leen mise en demeure. lasta bi ci wax ji ne Aïda Ndiong seeni ñu ko mbaaw seetal Dembu ciow ak warante gumiti mo amone amoon procureur spécial bu créé ak maître Elage Amadou Sall lepp nak mi ngi tuké ci ay sétlu yu maître Mbaye Jacques Ndiaye def ci dossier bi ndax dañu sakku ci brigade de recherche bu Koloban ca ndortel li di enquête bi mu xol ndax ay da njong alal ji mu am lata gouvernement maître Abdoulaye Wade la ko am wala ci gouvernement maître Abdoulaye la ko am aw cabinet lolé loolee la ndax liko ko Senghor ak Abdoulaye Senghor ak ki di Abdou Diouf jiite lañu réewum Sénégal laata Abdoulaye Wade di fi yegsi xarxar fu fokk ko gëmul mu ne la fuuf jàngalaas procureur Ali Ndaw démb soxna si bi mu dukkee dafa ne ko jàpp loxo ñu bari nag jaaxle ni waaw kii mi ngi nuyu soxna si te ki démboo Njaay Karim Wade bi mu ñëwee ni ko jàbb loxo Ali Ndaw dafa lànk Aliou ndaw ne euh, du jox Karim wadd loxo euh, ndax Karim Wade jamono jooje ay téere la woon ci diggu bopp bi euh, ba ci wewu tànk bi moom Karim Wade nag loole moom moo tax joxu ko loxo ndax ba ko Karim ne jàpp loxo moom dafa téye basam bank ko bañ koo faale ma bu Sénégal falewul askan wi ndax noos pàccoo ak gundaandaat la ñu nekkee jàngal la tribune ci émission bi Mati 3 Pommes Seck ak Cheikh Yirim Seck Cheikh ne weer wu ne Macky dina jox kilifay Benno Bokk Yaakaar lu toll ci ñaar fukki million kaawteef xaaloo waxi bay diw loole nag ëpp na Cheikh Yirim siwal ay mbiram euh, ba noppi nag wax ni lépp loo nga xamante ni euh, def na ko euh, dina ci dikk ci ab téere bi mu siiwalee ay mbiram maanaam def ay révélation ci émission bi di appartement 221 euh, moom nag euh, nee na na mu doon dundee ci kaso bi dellu si na ci waaye itam la mu jàpp ne moo ayubal nekkin wi dina ko dëxëñ ci ab téere bindu na ko ba noppi du ko les goulots qui étrangle le Sénégal maanaam mbir yi xoj Sénégal euh, ba mënta jëm ca kanam. Euh, ci jamono ju ñuy passer passeree alalu réew mi laas xëye ay prisonniers yu def juróomi at ci kaso bi ñu waroon leen a atte niki démb seen njaboot seeni mbokk seen awika ñëpp ñëw teew ci ëttu attekaay ba waaye wu leen atte atte bi dañu ko randal ba 2015 ndax woto GIGN bi leen doon indi moo panne essence lu kenn mës a gis seeni i avocat nag ni lii c'est scandaleux euh, kenn xalaatul lu ne mel di am kenn xamul mbir yi li muy nuru euh, ba assises yi sax ñoom euh, dañu ci leen waroon a àtte ñoom juróom-ñaar ñooñu lee waaye dañu leen mujjee randal ba déwén. le populaire ne euh, toll nañu ci juróom-ñaari accusé euh, yu ñu renvoyé ba prochaine assise yi war a am loole tax na président cour d'assise bi euh, dafa mer ndax dafa ni oto bu panne essence loolu xel xalaatu ko te war nañu ko weesu ci réew mu mel nii réewum Sénégal li am te ñu bari ci askan wi xool ko ràññee ko xam ko moo di natt ak xayma gi jëmoon ci askan wi daanaka bu ñu xoolee. Pikine mooy département bi ëpp ay nit euh, ci réewum Sénégal yéenekaay bi di la Tribune euh, moom moo ko xëyee euh, sunu lamb nag xëyee moom jax gi nga xamante ni lii di combat war nañu ko mën a jax mu doon arène bi ci weeru avril bi nee na am na ci ay choc yoo am solo yoo xamante ni naam diggante Tyson Gris Bordeaux Zos Guy gi Pape Morlo Siteu Sa Thiès ak Jordan waaye Abdoulaye Makhtar Diop ancien ministre des sports ci sunu làmb euh, mu wax ne euh, lu aju ci njuumte yi nga xamante ne am na ci lamb ji war nañu xool naka la ñu def ba jubbanti ndax daanaka doxalin wi ak tërliwin nuy ay njuumte kese la euh, te bokk na ci liy faral di indi coow coow lu ñu bari ci mbëri ak écurie yi du ñu xam naka lay doxe dale nee nag moom ànd na ci 100 pour cent ci contrôle antidopage yi nga xamante ni dafa bëgg ñu daal di koy amal rax ci yi itam euh, mën nañoo liggéey lu tax sponsor yi dellu si euh, ci euh, lamb ji waaye li wér te wóor moo di lii di stade di arène nationale bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a tabax te mu jur coow wax na ni nañu du mooyu fépp yóbbu ko fële ci jam ñaajo